donc maa ngi leen di gërëm di sant ñëpp ñi fi teew LONASE ak ay équipe ak suñuy partenaire notamment le directeur général de Premier Sénégal di remercier tamit euh, suñu xaritu presse bi euh, organes yi fi teew yëpp nekk ak ñun ci partenariat bu yàggati dëgër ñu leen di sant di wax ne tey li ñu fi indi mooy remise de chèque comme ni ñu koy defee souvent Euh, di jox chèque suñu benn client nga xam ne dafa gañe si suñu jeu bi tudd seen loto jackpot euh, symbolique wu tey bi nag mooy benn ku jigéen moo gagné euh, muy madame War deuxième chose bi mooy montant bu am solo la parce que soixante presque soixante-treize millions la. mu nekk deuxième plus important lot ou deuxième plus importante cagnotte remportée par un parieur depuis bi ñu lancé jeu bi euh, il y a plusieurs années benn gain moo ko ëpp mu nekkoon 78 millions il y a quelques années donc tey ñu am 73 millions loolu mbégte la ci ñun parce que suñu liggéey mooy di présenter ay produits suñu partenaire yi ñu ñu ñuy woolu di ci jouer donc euh, di dugal seen xaalis quel que soit les montants ñu ci am loo xam ne mooy dundal société bi di ci am loo xam ne dañ koy reverser ci économie Sénégal comme ni ko slogan bi di waxee donc suñu toogee ba am suñuy parieurs yu gagné mbégte lay doon tout le temps moo tax ñuy euh, profité ci occasion bi di féliciter euh, soxna si gagné di ko ñaanal yàlla moom ak borom këram ñu mën a utiliser euh, somme bi ci ay projet yu am solo yoo xam ne dina leen jëriñ jëriñ seen njaboot. di lancer appel également suñu ay parieurs euh, parieurs yi mooy suñu raison de vivre ou de d'exister ñun en tant que LONASE ñoom suñ doonul woon jouer LONASE euh, heure bi fekk nañu suul ko bu yàgg donc mënuñu leen fay euh, li ñuy góor góorgóorlu di def chaque jour mooy di fexe nekk à la hauteur de leurs attentes di def ay jeux yoo xam ne am na solo mais di ko def aussi dans des conditions techniques extrêmement euh, parfaites donc loolu la ñuy jéem euh, bés bu nekk ak suñuy équipe donc loolu moo tax euh, ñuy demander parieurs yi nga xam ne ñu ngi wóolu Lonase yëpp ñu continuer di jouer te xam ne ku ci sa wërsëg nekk di nga nekk comme soxna si tey gagner ay montants yoo xam ne na la mën a permettre nga réaliser say projet di gërëm tamit suñu partenaires yëpp notament comme j'ai kii nga xam ne moo fi teewal premier bet nekk ak partenaire bu am solo mais gis ngeen ne tamit ñun suñu nekkee partout à travers le pays dafa am ñoo xam ne ñoo ñu jàppale si euh, à la base notamment mooy les vendeurs xam ne seen président association teew na fii tey muy monsieur Niang te fu ñu gestu fekk ko suñu gannaaw donc ñu ngi ci euh, gërëm également euh, les vendeurs seen présence ak seen accompagnement ak seen engagement ak détermination à côté parce que xam nañ ne ñoom ñoo ñu nekkal daanaka si naaj bi voilà donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, di féliciter encore une fois kii nga xam ne moo moo moo gagné di ko ñaanal mais di féliciter également toutes les équipes de la LONASE notamment DMC ak euh, DCR je vous remercie. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ñu fi sant ñëpp maa ngi tudd Bakawar maa ngi nuyu ñëpp.

waaw projet yi moom comme ni ma ko waxee woon bëri na rek mais damay bàyyi monsieur après mu jël ay décision ah, waaw ah, waaw maa ngi leen di lancé que ñu gagné ñu tenté change parce que c'est la chance qui gagne waaw waaw maa ngi koy jaajëfal kontaan ci ñoom rek ah, waaw te lan ngay wax borom askan am message bi may wax que li may njëkk a wax ci message bi mooy some bi ma apporté mu doon li ma jik waaw mu doon li ma jik